السلام عليكم ورحمة الله بكي يقول لي نيت لين زيار لين بالحق يعني برم سبحانه وتعالى بولي نجل آية يومية بداية قال الله تعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون آية 117 آية bis bi borom bi subhanahu wa taala mu ngi wax ci alquran ne ndax da ngeen yaakaar ni dama leen bind ci caaxaan wala da ngeen yaakaar ni du ngeen dellu si ci man mu teg ca ne yàlla moo kawe amul benn buur budul moom kon nag képp kuy woote beneen buur budul moom kooku du am awlay te ngeen xam ni kooku moom yàlla moo koy lijjantil boppam te moom yàlla képp ku ko weddi doo texe ëllëg aaya bi mu ngi ci suura al muminuun mu toll ci eh, numéro 117 Euh, borom bi subhaanahu wa taala lim ñu bëgg a rek mu ngi ñuy laaj aw laaj ndax ñun dañoo yaakaar ni daf ñoo bind ci caaxaan yàlla bind ñu ci caaxaan de daf ñoo bind pour ñu jaamu jaamu ko indi ñu fii pour ñu jaamu ko ñu boole ci liggéey liggéey boobu liggéey bi doon liggéey bi doon jaamu yàlla maanaam liggéey bu dagan liggéey bu dagan bu ko jullit bi di def du faat waxtu liggéey bu dagan bu ko julli bi dee wax dee def du bàyyi koor bu amul ngant bu ko dee def du bàyyi zakat bu amee lay tolloog mu génne azaka loolu mooy liggéey bu dagan bu ko defee liggéey ba lépp lu mu ca def kooku jaamu yàlla lay doon ci moom euh, loolu moo tax mu indi ñu fi ko loolu du ay caaxaan pour ñu préparer pour ñu defar àdduna leeral ko préparer ëllëg ma ñu xamal ni moom mooy moom yàlla mooy ci kawe bu dee dañ ko fàtte nañ ci bàyyiwaat xel bu baax ndax toll lañ foo xam ne ci réew mi léegi lu waay neex lu neex waaye rek wax ci yàlla ci noo koy gam-gamle ak nit wala yonent bi sallallahu alayhi wa koy di ko tuutal wala wax ci moom wax yu garaw maanaam réew mi liñ fi wax yàlla di ko jëmale ci yàlla ak ci yonent bi buñ ko waxoon ci cëriñ léegi conférence de presse jóg léegi gars yi daal di génn ay yat léegi nga gis ñu taxaw ci réseaux sociaux yi ci télé yi démentir ku wax ci wax yu garaaw ak i tontu yu saf-sàpp bu dee yàlla nag moom wala yonent bi lu waay neex wax wala diine ji wala alquran dara du la ci fekk amul sens synthétique loolu c'est grave ci réew moo xam ne nañ quatre-vingt-quinze pour cent musulman loolu loolu c'est faux mënta nekk réew moo xam ni quatre-vingt-quinze musulman ñoo fa nekk quatre quinze pour cent kenn du fa fooyee yàlla lu toll tarfatul ayni ñi bàyyi muy débordé kooku dañ koy jëli ba tax nit dem am am orange toog jël yàlla def ko comme nit di ko galgal di roof di mbot jiite mbooloo wax ñiy tàcc di yoofu te dara du ko ci fekk loolu kaarisa la de ak cëriñ su ndaw si nga xam ne lu leen neex wax ñi koy ñi nga xam dañuy jël yàlla di ko philosophe léegi di ko wax naan bu la fayul nangam ak nangam nangam ak nangam nangam yooyu ñu bàyyi ko muy muy tere na ci réew ak kattan gi mu am nga xam ne ni mu ni ko maanaam tukkal ak réew ni mu ko yombee ni mu gaawee ci moom mbugal leen ni mu gaawee ci moom yooyu dafa dafa dafa garaaw ñu di bàyyi ci xel lii leen di ko metti lu di ci taxaw di ci wax mbootaay yi nga xam ñu ngi ci réew mi su dul lool rek musiba buy ñëw du bàyyi kenn de yal nañ ci yàlla musal kon mu ngi bàyyiloo xel boppam màggaayam ak rëyaayam ak kayawaayam di nga xamal ni képp koo xam ne mu ngi woote beneen yàlla bu dul moom na xam ni du am lay ci kanamam waaw bëri na fi ñoo xam ne ñu fi dëgg ci wàllu woote bu jiite ay mboolo di di def shirk di bokkaale yàlla subhaanahu wa taala kan koy bokkaaleel kooka teg ko palaasu romb nga ko malaak bu yóbbu ko ci palaasu yàlla te léeg mu feebar ba moom maytul buñ koy évacuer yu yaa koy taxawee yóbbu ko muy tam France bi dugal ko ci ambulance bi yàlla bu biiram di metti wala mu am nopp buy metti wala mu wànnent wala mu toog ci sag wala mu xiif waaw nga gis di gën a ci moom wala mu dee teg ñu ne diw moo koy sang diw bokku ca taalibe mu ñëw bu ñëwee bokk ak moom morgo bi mu ne mu ne sënge mënul dara xulli bati yaa koy wàcceel wala mu ŋaaŋ gémmeñ gi lu ñëw dugg yaa ku koy tëjal boo pare defar ko laxas ko dem suuli ko gas kam boobu set suul ko fa tu doog fa wettali sax ya fekk ko fa dugg ci gémmeñ ga lekk ko yaram bu jëm ba maxe ba jeex takk mu doon aw kaaŋ foofu lay mujj kat loolu mat nay bàyyi xel kon nga yëg kon kenn du dara kenn nekk fi kuréel yàlla subhanahu wa taala ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñëpp du ñu dara tekki bu ñu dara ci kanam yàlla ndax yonent bi yàlla yonent sallallahu alayhi wa rek moo ko saf ku ci nag bëgg am garaat ci moom da ngay da sa bopp teg ko place bi nga ko war a teg doo ko gam-gamle doo ko boole ak dara yëg ni ab jaam bu doye di nga di bàyyi xel yii ñu doon wax ci sa bopp mu jël la taf la ci boppam nag waaw loolu moo foofu la affaire bi nekk nag bu ñu bàyyi ci xel bu baax te na ne ki koy bokkaale kooku ëllëg yàlla moom moo koy lijjantil boppam dana ko lijjanti te képp ku ko weddi kooka du texe ëllëg ñi ko weddi na ñi ko jiiti mooy ñi koy bokkaale yal nañ ci yàlla musal qul qawli hada wa astaghfirullaah al-aziim wa salaamu aleykum wa rahmatullaahi